ne ñoo ngi ci jël ay matukaay waaye ba léegi courant bi dafa seer journal bi nee na maanaam ni ma leen ko waxee rek réew mi dara du xul bu doon am montre la ñu ne aigu bi tourné ta yéene kaay gi ne ñi nga xam ne nag ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom seen politique bi yépp xaalis la maanaam ci la ñu sukkandiko mooy organiser ay meeting yoo na leen ne maanaam téeméeri militant mënutuñu ko dajale xëy di ñu xibaar naan ñu maître Mame Adama Gueye nee na bu ñu waxantee dëgg Sénégal gii nga xam ne am am na ñenn ñuy wax naan état de droit la ak république la man maître Mame Adama Guèye gisaw ma ko noonu li ma gis mooy Sénégal amuguñu état de droit waaye tamit Sénégal amuguñu ab république ndax moom metre Mame Adama Guèye daan nay wax ne administration boo xam ne bu ko yoon santé na ko jëfe ko day lànk ba tëdd sanaajo bañ ko jëfee misaal mi mën nañoo bañ a sori ndax tribunalu Ziguinchor fii la taxaw wax ne Ousmane Sonko nañu ko dugalaat ci liste électorale yi waa direction générale des élections taxaw nañ ñoom duñu jox Ousmane Sonko ay fiche parrainage ndax état bu Sénégal dafa am intention def recours moom maître yi nee na ay intention kenn waru see sukkandiku ba bëgg a taxaw naan diw du ko jox ay fiche parrainage loolee ci boppam moo tegiwul fenn désolé waaye Sénégal amuñu état de droit moom maître Mame Adama Gueye daan nay wax ne justice bi maanaam bu jëlee ab dogal loole dañu ko war a jëfee li ñu jël ni ab dogal ci Ousmane Sonko wax ne nañu ko dugalaat ci liste yi loolee dañu ko war a def ci ni mu gën a gaawee te recours bi nga xam ne nag avocat a gàntal mënut a suspendre dogal bi nga xam ne yoon jël na ko élection bi ñu fi taxawee bañoon a jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage ñi nga xam ne ñooy waa Sénat ñoo leen jubbanti woon li am ba des daal mooy Ousmane Sonko dañu ko war a jox ay fiches parrainage waaye nag bu ñu ko deful loolee violation la ci lu jëm ci wàllum loi administration bi bu ñu waxante dëgg dañu ko politiser te administration boo xam ne du respecté ay loi ni ñu jëmmalee suñu administration bi loolee la ñu war a xoolaata ndax politique bi daf fee sa sàpp kàddu yi maître Mame Adama Gueye moom li mu wax daal ci gudd gàttal mooy Ousmane Sonko dawal bi nga xam ne yoon santaane na ko ngir ñu dugal ko ci liste électorale yi tere dañu ko war a jëfee maanaam recours bi avocat état bu Sénégal di wax sa cour suprême loolee wër ta tere ñu jëfe dogal di source fekk fa mu njaay Cissé daan nay ne direction générale ak ñi nga xam ne ñooy waa daafa dañoo war a dugal Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba pare jox ko ay fiches parrainage ndax yoon loole la yoon santaane te nag ñii bu ñu lànkee bañ a li nga xam ne moom la yoon wax ñi nga xam ne ñooy waa Sénat code électoral bi may na leen maanaam ñu jëfandikoo nag ñoom pouvoir bi xam ne moom la ñu am maanaam jëfe dogalub justice bi jël Ousmane Sonko jox ko ay fiches parrainage loolee kàddu yi mu Cissé la nee na waa Sénat bu daaf ak DG deful seen liggéey na Sénat jël liggéey bi daaf ak DG waroon a def defal ko boppam ndax code électoral bi may na ko ko am na si sañ-sañ yéen i kaay gi de Verde xëy duñu xibaar naan ñu waa AFP ak waa parti socialiste ci week-end bi ñoo doon investir Amadou Ba dan nañu dëggal ne Amadou Ba mooy seen candidat nee nañu tamit dinañu ko jàppale ngir mu falu ci élection présidentielle 2024 Moustapha Niass ak ñi mu àndal ñoom nag nee nañu Amadou Ba na sa xel dal na candidat socialiste yi Moustapha Niass daan nay wax Amadou Ba naka yow laa dénk AFP ngeen ànd ci wegante ak jàppalante yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu diggante xalifa Sall ak Macky Sall diggante ba na mu doon demee demeetunu xiiroo ak ŋaayoo am na diggante Macky Sall ak Khalifa Sall ñaari doomu bàyyi ñoom ñaar seen diggante neexoon na waaye jamono ji diggante ba neexutu la te diggante bi nag bu yàqoo li ko nar a mooy Barthélémy Dias ak lu jëm ci mbiri Ndiaga Diouf yéen kay gi di Vox ñu Bougane Gueye ngi ci waajtaayu élection jamono ji ñu génn doon nañu ko investir waa coalition gëm sa bopp ñoo ko doon investir bugaan ngi dani nee ay jafe-jafe moo am ci réew mi waaye bu ñu ko dénkee réew mi jafe-jafe yooyu jeex moom bugaan ngi dani daan wax ne bu ñu ko dénkee réew mi du nekk père de la nation du nekk gardien de la constitution waaye serviteur de la république lay nekk moom bugaan ngi dani daan wax ne jamono ji ci réew mi dund gi metti na bëri na ay njaboot yoo xam ñoo ngi dund ak tumuranke ndóol goo xam ne na ñoo xam ne jamono ji dañoo jaaxle tumuranke gu mat ñi teg seen bopp ndaxu jaaxle dëkk bu méttee dëkk bu dëgër lu jëm ci ressources naturelles yi nit ñi koy doxalee dara jaaru ci yoonam moom Bougane Gueye Dany nee na jafe-jafe yi yëpp bu ma faloo 2024 dina jeex nee na jigéen ñi at mu jot lu toll ci 100 milliards lay génnee teg ko ci taabal ji La Tribune yéene ak Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany ma ngay wax ab programme am yéene kaay gi du source xibaar naan ñu plan B bu Pastef bi ñu doon laam-laamee ji jëmmal ko ndax Bassirou Diomaye Faye mi Ousmane Sonko taxaw ne ko parrainé Bassirou Diomaye Faye moom déposé caution ca CDC naam nag bëriwul xumbaay bëriwul mumbaay waaye nag Bassirou Diomaye Faye ak ñi mu àndal jël nañu trente millions yóbbu ko CDC ni ko yeneen candidat yi doon fësale Bassirou Diomaye Faye defeewu ko noonu maanaam discrétion yéen kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu CDC googe nga xam ne fa la gaay du yóbbu caution bi lu toll ci 43 candidats déposé nañ seen caution xaalis ba bi ñu ko xayma toll na ci benn milliard bu fekk ñaar fukk ak juróom-ñeenti millions yéen kaay gi di Public Quotidien ñu xëy fekk fa Pape de l'emploi daan dàq élection 2024 yi mbir la moo xam ne mbir mu munta ñàkk la c'est inévitable yéen kaay gi di exclusif xëy duñuy xibaar naan ñu coordonnateur benn bokk yaakaar Diourbel di ministre Dame Diop ci week bi ma ngi woon ci diwaanu Mbàkke ci ndaje moo xam ne soxna Fatou Bintou Pouye moo ko organisé woon Dame Diop moo ko doon présider journal bi di exclusif xëy duñuy xibaar naan ñu mbooloo mu bari moo ko fa teertu ba muy dem délégation bu rëy la àndal Mara Diop honorable conseil économique social environnemental ak yeneen responsable yoo xam ne Diourbel la ñu bàyyi ko riir wuti Mbàkke Dame Diop ndaje Ndiéma daan nay wax ne président Macky def na lu bëri ci Sénégal bilan la boo xam ne kenn du ko lam-lammee rawatina fii ci Touba bilan bi président Macky def ci réew mi nag dafa war a feeñ maanaam 25 février yi dañoo war a delloo njukkal Macky te nañu koy delloo njukkal mooy fal Amadou Ba moom ministre Dame Diop ci biir journal bi di exclusif daan nay wax ne xelam dal na ngir Amadou Ba gagné élection présidentielle 2024 waaye nag li leen moo def mobilisation bu rëy ci week-end bi jigéen ñi département bu Mbacké la dajale financé leen lu toll ci vingt cinq millions jaarale ko ci cent boutiques yéen kaay gi ne ndaje la moo xam ne jigéen ñu bari ñoo ko fekkee dem nañu sax bay wax ne yaay suñu ministre de la femme ci Bawol yéen kaay gi de la peuple quotidien xëy duñu xibaar naan ñu 2012 ak léegi njiitu réew mi di président Macky Sall génne na lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay milliards def ko ci daara yi lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci daara la Macky Sall tabax defaraat na lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay daara Dakar Presse xëy duñu xibaar naan ñun lu jëm ci wàllum wér yaram ke dina yëngooti ndax alxamis ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre mbootaay gi ëmb syndicat yi nekk ci wàllum wér yaram ke dinañu ñu génn sax dañoo bëggoon a marche waaye nag dañu leen koo tere ñoom seex seek nee nañu ñaari fan ba pare rétention d'information maanaam mboolem information yi nga xam ne tukkee na ci wàllu wér yaram gi ñoom dañu koy denc duñu ko fësal yéen kaay gi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu drogue bi jamono ji ma ngi jaabaa jonge ci réew mi ndax marine nationale ci ñetti semaine jàpp na lu toll ci juróom benn ci ay tonu drogue yéen gii de libération nee na drogue bi moom ma ngi jaabaa jonge ci réew mi ndax lu toll ci fukki fan ak xam ne jàpp nañu ko bi ñu ko xaymaa deux cent cinquante deux milliards la yéen kaay gii de la tribune xëy di ñu xibaar naan ñu drogue bi li ñu koy dégg ci réew mi bëri na wàllum trafic drogue ndax Sénégal mujjute nekk ab carrefour loolee ab laaj la yéen gii de enquête drogue yoo xam ne marine nationale jàpp nañu ko ñaar fukki fan ci ginnaaw jàppoon nañu lu jege ñetti tonne drogue yéenekaay gi nee na nag wàllum drogue bi jaba ju ngi ci réew mi ak drogue bi ñuy tudd ci réew mi am na ñeen ñu ngi ciy tudd ñoo ngi ciy tudd benn sëriñ ñoo ngi ciy tudd ab woykat maanaam ab musicien akum sniper ñoo ngi leen di wër takk déer yee ngi leen di wër yéenekaay gi nag nee na bu ñu leen laajee ñan ñoo ëpp lu ñuy muqi ci drogue bi maanaam ñan ñoo ëpp lu ñuy jëfandikoo drogue ci réew mi maanaam politiciens yi la politiciens yi li ñuy jëfandikoo drogue bëri na ci réew mi waaye tamit artistes yi